713 59 24 xar yëpp xar lañ waaye te bu ñu góor ngóoraa tax. nuy naa leen bu baax a baax mbokk ñuy seetaan mbégte la may jural di janoo ak gaaw bu jot ci info faar bu ngeen taxir loo as lëf ma xuus ak ci faram li jot xuus ci xibaar gën a fës ci biir semaine bi. mbirum passeport diplomatique ya ñu doon waxtaanee diggante présidence ak ministère des affaires étrangères ñu doon ci tudd ay gendarme ni ki démb la ñu doon ko atte takk der ya danañu tëdd ñoom ñëpp ku ci ne benn atu kaso ci gile coow nag jàppoon nañu ci juróom-benn nit mu di homme d'affaires bi di Limamoulaye Seck Ali Ndaw Badara Samb ak Cheikh Ibn Arabi Samb ñoom ñëpp di ay agent ci ministère des affaires étrangères bokk na ci ñoom itam ñaari gendarme yi di Assane Ndion bu bureau des passeports diplomatiques présidence le soleil xamle na ni nag ñoom ñëppay tëdd benn watu fukki fan ak ñett ci weeru décembre atum 2021 ministre du tourisme ni ki ba si génn la doon janook taskatu xibaar yi ngir weddi tuuma ya njiital kuréelu Pastef gi tegoon ci ndoddam tamu yemook la mu ni ko rek IGE ñoo ko épinglé woon ci ba mu newee woon Prodac Mame Mbaye dafa fas yéene porte plainte maire Ziguinchor gi ñeel dossier wu Sweet Beauté gi nag ancien directeur directeur Prodac gi xamle na ni bu procès gi jàllee dana woo bi yëpp xamal leen li Ousmane Sonko def tegal leen ci ay firnde yu kenn dul dindi teg na ci di wax ni rek Ousmane Sonko dañu ko war a téye euh, mu nëgandiku procès ca kaso ba ndax amul benn sénégalais gu ñuy tuumaal viol nga di doxi say soxla euh, bu ba mu newee député moom ci boppam bokk na ci ñuy voté rek loi bi criminaliser viol euh, kon warul nangoo am taxawaay gu ni mel fekk ñi ngi di ko tuumaal ci mbirum viol lu Koumpentoum euh, Tamsir Sané ma ay defkatu ñawteef faatoon chambre criminelle bu cour d'appelu Tambacounda jël na ca ndogal ak jiite defkatu ñawteef ya di sa Sow ñu gën ko xam ci pël bu rafet ak Kekero ba ña nga di leen toppee association de malfaiteurs vol en réunion commis la nuit avec effraction usage de véhicules et d'armes ak itam violence gu wundu génnu pàddina commandant Tamsir Sané ni ko l'observateur doon xamle ñoom ñaar ñëpp daanuk perpétuité la ñu teg Diallo ak Doudou Ba ñoom toppeetuñu leen dara di fàttali rek ne adjudant major Tamsir Sané di woon commandant wu brigade territoriale bu gendarmerie wu Koumpentoum ña faatoon guddik alximis ñaar fukki fan ak juróom jàpp aljuma ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru juillet atum 2019 ci ab intervention gu brigade ba doon def ngir jëlee fa defkatu ñaawteef ya duggoon ci postu gox ba mbër mi di Saalum Saalum dafay delluwaat kaso ndax altine gi weesu la ko juge bu Saalum Saalum ña nga di ko toppee viol détention ak usage de drogue l'observateur di xamle ni lu ñeel juróom-ñaari nit yi jàppandoo woon ak moom moom mbër mi dañu leen placé woon sous contrôle judiciaire ñeel consommation collective de drogue Saalum Saalum këram la ñu ko jàppee woon ci HLM gannaaw ab plainte gu mee dugg nekk ñaar fukki at ak ñeent teg ci ndoddam ndaw si dafa demoon jëndi cocaïne kër mbër mi ci vingt cinq mille bi mu toxee ba noppi toog fa lu yàgg lool mbër mi ni ko quatre vingt dix lay jar ci la ko mbër ñu am lu ñu sekk ndaw si daal di bañ duma ba noppi sàkku ko ci ay kàddoom ay waxtu lañu ci tekk police dal di koy ci jàpp si lu bees juddu na ci coowal viol ga ñu doon tudd si Toox Ndour ma di ancien directeur u COUD di ca APR bu ñu sukkandikoo ci l'observateur ci ndigalu chambre d'accusation bi actuel PCA wu Saïd gi jëlee nañu ko cellulam ba si ñu génn yóbbu ko këram ñeel ab judiciaire ngir ñu complété ay pièces dossier gi jébbal na gendarme yi benn drap benn Adama da koo fekkoon néegam ni ko euh, loxoom day metti mu jëlal ko mu diwal ko ca pomaat maaseel ko ko mu di ay kàddu yu gune ko jigéen gi weddi ba mu set di wax ni njaatigéem bee ko fekk néegam caabi bunt bi dal koy sàkku mu ni deret takkoon na sax ci dara gi ak sperme ba ko àttekat bi laajee la waral joxul l'enquêteur yi tubayam googu muy wax ni takk na deret ak sperme mu ni daf ko fóot gannaaw ba mu ca jógee ci la fàttalikoo ni Sitor Ndour bu beige la soloon waaye nag Sitor leeral na ni caleçon bu weex la Grand Yoff ci réquisition gendarmerie di wane ni sperme amul ci partie génitale gune gu jigéen gi chambre d'accusation bi fi mu ne nii nag dafa bëgg ñu déglu gynécologue bi ngir mu àddu ci pilule ya mu bindaloon jànk bi xibaar wi la nag du neex benn yoon askanu Sénégal ndax waa kër sergent Fulbert Samb ña nga woon rek ca morgue bu l'hôpital principal Ndakaaru mujj nañu xàmmee nag néewu seen doom bi di sergent Samb maanaam daal néew nga sapeur pompier ca boori Cap Manuel ku dul yóbbu CTO jaar moom l'hôpital militaire Wakam dox di ko jàllale l'hôpital principal Fulbert Sambou ma nga bokk ci rang yi bésu 1er mars atum 1998 servir na ci corps yu bari ci l'armée gi laata mu nekk ci délégation nationale du renseignement Sambou doomi ñomun la ca quartier Essa Golu moo di ñaareelu militaire gi ñàkk bakkanam ci diwaan googee laata moom nag kii di Grégoire Diatta bu Ubak bokkoon ci ab testu GIGN moo njëkkoon génnaat dina demam nag bettoon waa kër Fulbert Sambou nag jamono ji yàpp autopsie la ñu bëgg ministre Moussa Bocar Thiam ma ñu dénk communication télécommunication ak économie numérique dal dinay dalal coordination des associations de presse sekk waxtaan ak ñoom ci teewaayu directrice de cabinet madame Fatou Bintou Sall ak directeur communication Ousseynou Dieng ñeel mbirum Pape Alé Niang responsable yu CAP convaincre nañu leen ngir liggéey ak moom mën a génnee kaso directeur Dakar gi ministre de la communication rafetlu na initiative atelier média yi nañu ci rek ci mbir yu yenwul maana ya am ci arrestation Pape euh, jël nañu nag ndogalu gisee ministre de la justice ak bu forces armées ngir xool ci njëlbeen naka la ñu mën def ba libéré Pape Alé Niang ba tey l'enquête baa ngay wéy ñeel arrestation Pape Alé Niang gannaaw l'enquête interne gendarmerie ga mu fësaloon te mu soxal mbirum Sweet Beauté Le Quotidien moo doon xam le ni teg nañu loxo benn gendarme ci gëstu ya ñu doon amal ngir xam suuf su taskatu recel et diffusion de documents administratifs estampillés secret ak itam propagation de fausses nouvelles njiital kuréelu Pastef gi doon réew mi doon na laajte rek ndax benn copie boobu dong ca am nee rapport googu moo waral Augustin Tine dem na di wax ni Augustin Tine daawuloon def la ko Macky Sall sant ci l'enquête ga ba foofee mu nekk ca kaso ba nag Papa Alé Niang dal dinay bàyyee bataaxal askan wi di wax ni rek amul benn mbetteel ci xibaar ya muy wax ni ka mu dippee torchon moo ko joxee xam ci rek kàccuk nguur gi ba tax na faaw ñu am lu ñu inventé ngir bañ a suufeel seen bopp Pape Alé nee na rapport interne gendarmerie bi taxul ñu jàpp ko ndax si audition di ñaanal ñu gis leen ci jàmm waaye yaakaar na ni rek du ñu àndil seen famille ay néew yëf yaa ngay gën a ñeel Cheikh Ahmed Cissé ma ñu placé woon en garde à vue ca cybercriminalité gannaaw ba ñu ko dégluwee ba noppi Mame Makhtar bu Jamra moo teg plainte ci ndoddam ndax ay kàddu yu desee teggine yu mu yëkkati woon jëmale ci jàkk yi ci kanam l'enquêteur yi Ahmed Cissé dafa dëggal la mu waxoon xamal leen ni da ko wax ngir jàngale te wolof bi la ko mën a làkkee ngir ñu mën koo gën a dégg la ñu di ko toppee mi ngi yemook attentat ak outrage public à la pudeur ak itam diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs Kabirou Mbodj fondateur plateforme transfert d'argent gi di Wari alxamis lañu doon ko àtte ca baaru chambre d'accusation gannaaw tuumaay viol ga jax baatam ji sant si soxo teg ci ndoddam dossier ga dañu ko dàkkaat ba benneeli fan ci weeru décembre ni ko libération di xamle yëf yaa nga amoon ñaar fukki fan ak juróom ci weeru décembre atum 2017 gune gu jigéen gi nee bés googu moom ak benn xaritam ak nijaayam ñoo àndoon reeri ci benn restaurant gu nekk fii ci Ndakaaru ba noppi ci waañ ba ko nijaayam fekk tatafu ko ba ni mu koy sàkko ci ab cérémonie wu remise benn appareil d'échographie ca poste de santé wu Malika njiital association d'appui na ca baaxam nguur gi di wax ni violence étatique la jigéen ya nekk ca Kër Massar di dund ndax la amul appareil d'échographie te loolu du yoon Gabriel Kane dafa gis ne jot na responsable politique yi am xelu régler yenn urgence yi ndax tegewul ci yoon jigéenu wérul yi ci gox boobu bañ am prise en charge jàpp na ni nag fii at mi ñëw nguur geek ministre de la femme ak bu santé danañu jël seen ay matuwaay ci lu ni mel juróom-benn milliards yu ñu opérateur économique gi di Moussa Ndiaye jiite tudd nañu ko ci euh, bu Serigne Abdoul Aziz AG euh, seen ci SARL bu Moustapha Niang seen commerce général SARL bu Mouhamadou Habib Diop comptoir commerce 4 SARL bu Cheikh Tidiane Diop ak COGEPA bu Abdoulaye Sall société yooyu yëpp amoon ci crédit gannaaw ba ñu amee ay compte ca euh, bu nu sukkandikoo ci Libération Moussa bu société Sam am Sam SARL ba ñu ko interpellé dafa xam le ni rek koppax ya ñu jëlee ci chèque ya ñu jot ama nga waroon rek dugg ci njëndum diwlin ci njëg lu xéewale ngir ñu jaayaat ko mën a sa lijjanti compte ya ci la ñu naxee seen chargé wu compte bi di def ay prêt yu dul jeex diiru ñeenti weer l'enquête ga ca dikk amal xam le ne nag yenn ci société ya ay prêt no kese la ñañu di ca tudd yépp nag génn ñu diggante Thiès ak Tiwaawoon lu tolloog juróom-benn milliard la ñu ca Orabank nutrition et gi di Abdoulaye Sow nekk vice-président fédération sénégalaise bu football dafa d'accord ministre des sports Yankoba Diattara ca hôtelu gaynde yi foofe ca Qatar Abdou Karim Fofana ma ñu dénk commerce ak PME doon itam porte-parole nguur gi nag nee na loolu amul nee na dañu war a xam ni ci jamonoy fake news la ñu nekk ci ab waxtaan mu sekk ak suñu naataango yu Walfadjri xamal na leen yaakaarul ne loolu information bu am la ndax gisee naag toll nii lu waay mën ci wax dañu koy soppi te loolu ñëpp lay dal ñaari ministre yi nag euh, wax nañu ko ni rek amul benn jafe-jafe gu ni mel gu dox seen diggante ñetti weer ci ginnaaw gannaaw ba ñu tëjee l'hôpital la doon teg soxna si di Ndeye Khady Ndiaye doon fësal naqaram doon wane mbetteel gi mu am ci rendez-vous médicaux am ya ñuy décalé woy laa rek di ko tuxal ma nga dëkk Touba doon defee traitement wam ca doon teg toll na ci ñaari at moom nag la xibaar yi xam le ni mujj na génn àddina Ndeye Khady Gueye dafa waroon colostomium gannaaw opération chirurgicale gu mu defoon waaye loxoom jotuloon ginnaawam ña ko denc jamono ji ci almeeru Bakiya foofee ca Touba Sunugal 24 di bokk nakar wi ak waa këram di ko ñaanal suuf fooyof ci kawam Akon City la ñu doon waxtaanee ci assemblée nationale altine gi weesu ba ministre du tourisme doon jàll ci votu budget wu département wam ñenn ci député yi nag dañu bëggoon xam fan la projet gi toll bu nu sukkandikoo ci euh, la mu ak nguur gi ci contrat ga dox seen diggante suuf ya ñu ko joxoon ñeel projet googu dañu koy nangu jox ko yeneen i investisseur Akon City ma nga war a sampe ca Mbodiène 94 kilomètres dox digganteem ak Ndakaaru ba ñu amalee pose de première pierre ba weeru août atum ba ndëgëni nag projet ba mënul fexe ba pegg benn colonelu douane bu di woy ci turu Souleymane Sané la ay mag ak rakk di tuumal ci mbirum suuf Arona mi ñu gën a xam ci Ardo Salimata Seynabou Faye jëlee woon atum 2014 ca groupe Nabi Immobilière la ñuy toppee euh, colonel bi euh, ba ñu amalee seen ay gëstu la ñu xam ni émigré bi di Lansana Sané moo moom parcelle ba Lansana moomee nag moo mandaté woon jaxbaatam colonel Souleymane Sané ngir mu di ko xoolal travaux yi groupe Nabi Nabi Immobilière ni leen woon nañu xaar ñu jox leen geneen parcelle Arona fay ak rakkam ya di jéem a yàq deru colonel bi di ko yàkk xete xeteme dem nañu ba bind si muru site ba ni colonelu douane gi ab courtier la jàppee boppam di dund ci kaw askan wi loolu doy leen nag ñu dem ca émission tës di sosal colonel gi nu ne nag Souleymane Sané jébbal plainte ca brigade de la cybercriminalité ba su juróom-ñeenti fànn ci weeru novembre la ñu leen jàpp niki ba si ñu génn la leen doon taxawal ca tribunal d'instance u Ndakaaru ñeel injure violence ak voie de fait Arona Faye dëggal ni rek moo dugal ci réseaux sociaux yi vidéo ga ñu doon tasaare doon ca xas colonel gi ñoom ñëpp nag ku ne teg benn weer bi sëram Salimata juróom benn weer gu mu dul tëdd caba moom itam dana tëdd benn weer Pape mbay fanweeri at di membre ca convergence des jeunes républicains la ñu teg loxo di ko toppee usurpation de fonction Pape Mbaye bu ko neexee ni avocat la yenn saay mu ni agent au fonds de garantie des investissements prioritaires la di nax ay nit ba fon jib xamalee ndaw si di Adja Kumba Ndiaye ni mënul am financement ndax jaarul ci yoon wi ci la dox dee xam ni waa ji da koo gëlëmal niki noonu nag mu tegal kon dëgg sërëx a moom ndaje naka la Pape gisee takk deri jàpp ko fekk jotoon nañu ay plainte FONGIP ak bu Adja Kumba Ndiaye ba noppi ba su ñeenti fan ci weer wi la ko placé sous mandat de dépôt niki ba si ñu génn la ko taxawal ci tribunal des flagrants délits wu Ndakaaru Pape Mbaye célibataire la am na it benn doom ma nga dëkk cité Djily Mbaye nee na mësul wax Youssouf Diouf ni moom avocat la wa ilaa coordonnateur parti au pouvoir sa diwaanu Thiès moom membre la ca COJER ba mu amee licence Diouf bëggoon faju ji ca biti réew mu dimbali ko ba ba mu jot ci ay dossier wam demande de visa wam mu fay ko cent cinquante mille loolee terewul nag àttekat bi na ko coupable ñeel escroquerie teg nañu ci ndoddam benn at gu muy tëdd El Hadj ñoo ñeen fukki at ak juróom chambre criminelle bu tribunal d'instance su Mbour teg na ko daanu fukki atu kaso gu muy tëdd ci la di ko toppee yem ak viol ak pédophilie ci doomam bu jigéen bi amagul fukki at ak ñett bésu fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin atum 2021 la soxnaam si di jattu fay tegoon plainte ci ndoddam ñeel viol ci seen doom bi am juróom-ñeenti at ginnaaw bi ñu divorcé dañu yóbbu woon xale bi kër papaam ngir mu jàngi alxuraan am bés mu yëg ni rek doom ji dafa feebar ndaw si daal dem ba mu xamee la xew nag ci la dem doom ji ay yoon yoon waaye mu ni rek xale bee ko doon provoqué ba ñu ko taxawalaatee chambre criminelle mu weddi ni leen jabaram jamu tàggool moo ko bëgg a fexeel xale bi nee dafa sonnoon ci la ko baayam doon def moo waral benn bopp biir buy métti moo ko mujj sonal mu daal di koy waxaat beneen tantam di Aysatu Dia moom ile sax moo ko yóbbu l'hôpital gune gi di woyal naan juin 2021 ko bàyyee mujjee tëddee te booba morso la dugal ci gémmiñam ngir mu bañ a yuuxu kenn mën koo bañ a dégg médecin bi biral na perte d'hymène ak ki deretal ci awraay xale bu jigéen bi waa ji nee na nag pression moo taxoon mu dëggaloon loolu ci kanami gendarme yi El Hadj Niang mujj nañu ko ko toppee daal koy tëj fukki atu kaso mbokk yi li la ñeen andiloon tey ci defee gaaw bu jot duma tay ci di leen ko bamtuwaatal li jot a xuus ci xibaar gën a fës ci biir semaine bi la leen di baaxee bu ñu ca noppee bàyyi leen tontu beeg laaj bi ngeen analyser ko seen bopp dama fay jaare rek di jaajëfal équipe technique u sunu gaal 24 yépp di jaajëfal Dóor waar mi fare woon ci ginnaaw waaye itam di leen jaajëfal di leen jox dig daje beneen gaaw incha allah. ku ne xam na ne yàlla daa bind te yemalewul am na